أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وزريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكمه التنزيل وننزل من القرآن ما هو صفاء ورحمة للمؤمنين بك جلتي يغنى بني سنت يالله سن بروم تبارك وتعالى دي جلتي يونتم بتد بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دي فدل وات سونو جاينت اك شيخنا شيخ احمد بمبا خادم رسول رضي الله عنه ونفعنا ببركاته امين نيغي لين دي نيو di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen di leen balu xaq di leen bal xaq tey ñaan yàlla suñ borom subhaanahu wa taala mu boole nu jéggal suñuy xaq yi dox suñ digganteeg moom ak suñuy moroomi jàmm di fas yéene dellu si waat ak yéen tey ci benn secret boo xam ne mën nañ ne yépp yuñ leen mës a indil yu ñu leen mës a indil yépp fii ci seen YouTube les grands secrets am na solo waaye bii de bu dee am na yu ko ci ëpp solo itam bëriwul kon secret bi bu ñu war a mën a xam la bu baax waaye bu ñu war a mën a jëfandikoo taala ñu ngi leen koy fas yéenee laabire def nasihatan li Allah taala du ci sakku gërëmal yàlla sun borom ak di ñaan yàlla defal na ko ci te defal leen ko ci yéen ñëpp incha allahu taala moom nag comme ni ngeen koy gisee ci nataal bi rek la noonu lañ koy bindee danañ ko leeral ci kanam waaye laata ñuy jublu ci loolu ñi ngi leen di fàttali waxtu yi nga xam ne moom la ñuy recevoir ay nit ak di ci wuyu ay téléphone maanaam wuyu appel mooy li tàmbalee ci 9 heures ci suba ba 18 heures incha allahu taala képp ku am ci ñun yitte fexeel ba wooñu ci diggante boobu incha allah waaye li tàmbalee 18 heures jàpp guddi gi ba 9 ci suba waxtu yooyu dañu ciy nekk lu ëpp ci sunuy mbiri bopp ak mbokk yi nga xam ne dañoo seetaan vidéo yi am ci ñun yaakaar ba ñëw ci ñun wax ñu seeni mbir ñu ciy jëflante ak ñoom dafay am waxtu yoo xamante ne ni ci ñoom la ñuy nekk ci li nga xamante ne dafa aju ci wàllu xeetu zikar yeeg wirdu yeeg yi ni mel kon ñu ngi leen koy bàyyiloo xel bu baax a baax a baax lu waral ñuy fàttali loolu mooy téléphone bi day vingt quatre 24 heures vingt 24 am na ci ñoo xam ne ndeysaan xàmmee wuñu 23 euh, heures ñenn ñi xàmme wuñ sax ba une heure matin waaye loo ko waral mooy kenn ku nekk rek ak say jafe-jafe su ko defee lii ñu leen di wax tam dañu leen koy yëgal rek ngir ngeen mën a xam waxtu yi nga xam ne. danañ ci neex a jot lool incha allah bu fekkee nag koo xam ne suñu borom dafa dogal mu am yitte joo xam ne jaaxal na ko lool bala ma woote bu demee ba woote ci waxtu yooyu ñu lim nañu envoyé message xamal ñu ne dama am yitte ju jàmp lu ma bëgg ñu jàppale ma ci wala dama am cas urgence su boobaa suñu fekkee ñu feex danañ ko tontu message jox ko ndigal mu wooñu mbokk yi nga xam ne it dañuy woote ci whatsapp bi nekk ay sénégalais wala ñu ñu nekk ci biir réew mi rek ñu ne ci biir réew mi nañuy woote appel normal nañuy woote appel normal appel whatsapp yi ñu bàyyee ko mbokk yi nga xam ne ñoo nekk bitim réew ndax appel normal bitim réew moom day cher kon waa Sénégal nañ ko bàyyee ñu nekk ci biir réew mi nañ ko bàyyee mbokk yu nekk bitim réew bëri waa na ñuy ñaxtu nag di wax ne dañu lay envoyé message doo ñu tontu dañu lay envoyé message doo ñu tontu ñaari numéro whatsapp yi nag ma xamal leen ne 14 14 bi moo ëpp lu may jëfandikoo ñaareel bi itam lu toll ci junney message ak ñetti téeméer ak lu teg yoo xamante ne tontu tontoogu ma leen xoolaguma leen te mënumaa xool lépp yéen yéen ñuy comprendre rek te xam ne ñun moom bu ñu sañoon képp koo xamante ne yónnee nga ñu message rek danañu la tontu waaye nag loolu la suñu borom tabaaraka wa taala dogal xanaa ngeen di faral di insister itam waxtu guddi yi tamit ngeen di ko bàyyi xel bu baax ndax bu fekkee dañ la ne li tàmbalee 18 heures dootuñu wuyu appel yow nga ñuy envoyé message whatsapp ci jamono jooju xaar ba guddi nga dañu envoyé message ci jamono jooju itam dana waral bu ñu xëyee message yi day bëri ba sulaale ya nga xam ne ñoo nekkoon vingt vingt une heure vingt deux heures jàpp guddi gi su boobaa yooyu itam du ñu am temps bi ngir mën koo déglu daal kon yéen ñëpp ñoo ngi leen koy jégal bu baax te wax ne bu ñu sañoon bépp message bu ñëw rek ñu jël ko su ko defee nag ñu jublu ci li ñu tax a jóg incha allahu taala secret bi nag moom suuratu yaasin la suuratu yaasin mooy suura 36 moom ngay bind soo koy bind nag boo àggee ci soixante et un euh, nuñ koy waxee aayab juróom benn fukkeel ba ak benn soo àggee ci aayab 61 muy aayab juróom benn fukkeel ba ak benn aayab boobu da koy baamu 71 fois mooy wa an ubuduni haza siratun mustaqim aaya boobu da nga koy baamu soixante onze fois mooy aaya soixante et un yaasin mooy suura 36 verset 61 nga répété ko ba mu mot soixante onze fois soo paree nga mottali saar bi incha allah soo paree nga teg ci euh, suura 72 suura numéro 72 te mooy suuratul jinni suuratul jinni nga bind ko lépp ba mu jeex benn yoon une fois soo paree nga teg ci euh, ayatul kursi yu fois ayatul kursi mu ngi ci suura numéro 2 aaya 255 nga bind ko sept fois mhm. soo paree nga teg ci suuratul qadri suuratul qadri mooy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 suura 30 soo paree nga dem ci suuratu suuratu 12 suuratu 12 xaaral ma xool ko ci internet bi defe naa suuratu yusuf defe naa mooy suuratu numéro 12 <coughs> suuratu yusuf xaaral ma xool ko léegi suura numéro Mm-hmm. falamma raaynahu akbarnahu mi ngi nekk ci suura 12 waa suuratu 12 aaya mooy fanweereelu aaya bi ak benn ci saaru fukkeel bi ak ñaar te mooy bu ñu wax suuratu yusuf mm-hmm. fanweereelu aaya bi ak benn moom ngay bind moom tamit juróom-ñaar yoon te mooy falammaa ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna haasha lillahi ma haza basar in haza illa malakun karim soo paree nag nga teg ci salaatu ala nabi bi allahumma salli ala sayyidina muhammadin maa ngi jégalu daa am ku doon woote اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ست fois moom tamit incha allahu taala soo paree nga def ko téere takk ko baa nga def ko ndomb takk ko wala nga sangoo ko juróom-ñaari fan te boo ko dee sangoo nag na nga ci boole parfum boo xam ne parfum bu neex lay doon lu mel ni sikki wala miski ak mbokkam yoo xam ne amuñu alcool incha allahu taala ku ko def de ah bayre bi dana yéeme lool de di nga bëri bayre lool incha allah ñu ngi leen koy baaxee di leen wax nag ngeen di aimer vidéo yi tey partager te képp koo xamante ne bëgg nañu defal ko ci lenn wàllu jubooleeg sa borom kër wala juboo ak sa soxna wala ngeen yittewoo garabu kër gi garabu kàttan bi lépp livraison gratuite la rawatina Bayero Ndiaye bi nga xamante ne képp ku yëngu ci wàllu jënd ak jaay rek war nga koo am incha allah asalaamaaleykum. Bonjour et bienvenue sur le site YouTube Les Grands Secrets en Wolof. Nous avons l'honneur et un grand plaisir d'être encore une fois là pour vous présenter les grands secrets. Aujourd'hui, on vous amène encore ce qu'on appelle l'attirance, mais une attirance qui est extraordinaire. Celui qui le fera sera aimé, estimé et suivi partout où il va. On va le faire comme suit. Il faut écrire la sourate numéro 36, qui est la sourate Yassine, jusqu'au verset 61 puis répétez le verset 71 fois et complétez la sourate. Écrire la sourate numéro 72, c'est la sourate Al-Jina, une fois. Écrire Ayatul Kursiou, sept fois. Ayatul Kursiou est dans la sourate numéro 2, verset numéro 5, 255 écrire la sourate Khadri sept fois et enfin écrire la sourate 12 verset 31 sept fois et en faire tout ça un gris-gris ou une ceinture ou d'en faire un bain en y ajoutant du sel, du parfum, du sucre et du miel, puis de se laver du mélange pendant sept jours. Celui qui veut nous contacter n'a qu'à nous appeler sur les numéros qui sont sur l'écran. Chers internautes, nous vous remercions infiniment